yóbbu ba pare maanaam di dund ci ñooñu te en général bu ci jafe-jafe di am xëy na ñoom mën nañ ciy mucc ndax ca la ñuy jaarale nit ñi di leen yóbbu ñoom lu ñu xam la maanaam ñooñu euh, noo mën a gisee seen taxawaay wala luy seen atte boo ko sukkandiku ci liggéey bi nga xam ne Interpol commencé na ko jëm ci ñoom. waaw déjà merci ci euh, ci ci kii bi euh, introduction bi waaw jamono yi dañu toll jamono ji nga xam ne. li ñu doon ragal. Mhm. depuis des années parce que ñu ci bëri foogoon nañ ne que depuis 2014 2015 2016. mbirum mënd euh, mooy li ñu naan immigration clandestine. Mhm. Mhm. dakkoon na ci dëkk bi. mais malheureusement je dis malheureusement force et de constater euh, que lii fi xew nii weer wala semaine yi ñu génn. Euh, mu ngi ñuy renvoyer encore ci li fi xewoon dans les années deux mille deux mille un deux mille deux deux mille finalement les premiers accords euh, Sénégal jot ko fi signé ak dëkk bu mel ni Espagne ak Union européenne. lu ñu gis mooy lan euh, dañ fi gis ci ay jamono yu yàggul dara. Mm-hmm. président Tunisie Tunisie ñuy fàttali que dëkk la bu nekk ci biir Afrique. Mm-hmm. président Tunisie génn. daldi ne der ñuul mooy maanaam africain yu ñuul yi nga xam ne ñooy ñëw dëkkam ñooy lépp li fay yëfu bandi mooy maanaam yëfu drogue yëfu jaay sa bopp yëfu mhm. li yëg li yëg li ñoo ko fa indi mhm. donc ñooñu faw ñu tere leen ñu ñëw Tunisie mu am li fa am mu amoon ay coow yi nga xam ne euh, je sais pas pas mag day am koy fàttaliku mhm. coow yooyu bi mu amee ñu ci bëri ci Afrique dañu jël roppalaan yóbbu ko. dem jëli seen i seen concitoyens indi leen. fii nga xam ne mooy euh, delloo si leen seen dëkk. ba mu des Sénégal. Mali def na ko. Guinée def na ko. Côte d'Ivoire def na ko Burkina Faso def na ko ñoom ñëpp c'est-à-dire ñëpp ñi nga xam ne amoon nañ fa ay ay ay ay nit. Tunisie ñi leen di toroxal di leen dóor di leen saaga dem nañ jëli seen mbokk indi leen. Mm. mais loolu teewul am na ñi nga xam ne desoon nañ fa. loolu mooy premier alerte bi nga xam ne moom nañu am ci année deux mille deux mille vingt trois bi ñu daal di toog ay fan yu néew ñii nga xam ne ñoo jotoon génn Tunisie seen sababu bopp wala ñi nga xam ne dañ leen génnee sànni leen ci désert bi ñoo ñu organiser wu avec les réseaux de traite et de trafic commencé du uti Europe loolu bi mu amee ci côte yu mel ni côtu Sénégal côtu Gambie les pays côtiers foofu it réseau yi yeewu. commencé outil ji encore euh, Espagne ak Italie. ci loolu nañuy gis ay chavirement i naufrage ak i naufrage dégg ci ay ñu bëri bëri bëri ñu ci ñàkk seen bakkan. Mm. dégg ci ñu ci bëri ñi nga xam ne daanu nañ ci ndox mi ñu récupérer leen génne leen mais xam euh, li li li gën a yéeme ci mbir mi Pa Maguette xam nga réew une république un état soo toogee dégg ñu ne la am na ay gaal yuñ ne de Sénégal nañ jóge suux nañu question bi du non non gaal yi jógewuñu Sénégal déedéet du loolu mooy question bi question bi mooy nan nañuy def ba xam ñaata nit ñoo suux ak nañuy def ba indi si leen delloo si leen biir Sénégal. Hmm. mais ñu gis ni que loolu bu mu fi amee dafa jur polémique polémique bu rëy rëy rëy polémique boobu ministère de affaires ministre des affaires étrangères ñoo fi génnoon communiqué communiqué daal di weddi ni que loolu ñiy wax amul li ONG bi wax euh, amul mais ñi dem ba ci biir am ci firnde yu leer a leer leer ni que effectivement. meeru Kafountine nañ fi invité fii Walfadjri mu ñëw daal di firnde ni que bés boobu ñuy wax lu toll ñett ba ñeenti gaal génn nañu Kafountine uti ji Îles Canaries donc muy benn ba tey jii ñuy wax am na 278 yi neen ñi ngi Maroc am na ñenn ñi nga xam ne seen gaal bi mu suuxee ñi ngi Mauritanie am na ñi nga xam ne kenn gisu leen ñu naan déet teg ci ay fan am benn gaal bu suux mu kii euh, Saint-Louis ñu naan déet barki démb Ndiaye am benn gaal bu suux fii Dakar ñi ciy wax nag wax jib ji parce que maa ngi déglu benn kenn ki nga xam ne ci rescapé yi la bokk nee na moom benn gaalu marine moo leen mbëkk waaw ci kenn yi ci rescapé yi mais le porte-parole du gouvernement génn na moom nee na loolu du dëgg mais de toute façon sénégalais yi war nañu xam ce qui s'est passé mm. loolu nag moo jur lii nga xam ne mooy Interpol mooy euh, organisation internationale des polices ak Afripol mooy organisation africaine des polices organiser benn opération bu ñuy tuddee Wash Kera maanaam loolu dañ ne nag il faut que ñoom ñu xeex à partir de nos pays jaratul ñuy dem Guinée jaratul ñuy dem euh, Tunisie wala di dem euh, Maroc di fa xeex fii la ñuy xeexee les points de départ ci loolu nag ñu jotti jàpp lu toll ci junni nit yi nga xam ne ñii dañ leen jàpp ci wàllu trafic ñi ñu jàpp leen ci wàllu traite ñaari termes yooyu tamit il faut ñu leeral ko sénégalais yi euh, traite bi mooy maanaam comme nañ doon def suñu maam yi euh, ni leen tubaab bi doon def jeng leen jële leen fii yóbbu leen di leen jaayi bërëb sàngam hmm. trafic bi mooy ña nga xam ne ñooy jël nit ñi fii jaarale leen ci ay kano pour dig leen xaalis affaire bi fayeku leen war leen yóbbu fenn donc ñaari ci ñaari yooyu dañ ci jàpp lu tolli euh, junni nit mille personnes ba pare daal di xam na xamal ne que réseau yu bëri dañ leen démantelé daal di ci indi nag yu gën a garaaw da ci wax ba ci wax ci réseau yi nga xam ne moo nekk ci académie de football yi nga xam ne moo nekk ci Afrique saw jant bii mm. nee nañu ci académie yooyu yi ci bëri dañuy participer ci li ñuy wax trafic parce que dañuy jël ay xale gëmloo leen la nga xam ne amul yóbbu leen ci yenn pays yi ñu fa demee tumaraan fekk tumaranke fa mhm. daal di jël également ci mbirum traite humaine bi mooy jigéen ñi nga xam ne dañ leen di jëlee fii yóbbu leen ci di réewu arab yi di leen dig liggéey buñ demee ñu nekk fa comme li ñuy wax esclave sexuel mhm. donc yooyu yëpp rapportu Interpol ak Afripol bi daf ko génnee opération bi nag fan la am mais nag may leeral benn mbir cinquante quatre pays nañu def cinquante 54 pays mais man ci rapport bi maa ngi doon xool xool turu Sénégal mais ba nii may wax ak yow néew ma bokk ci de. Mhm. mais gisuma turu Sénégal ci rapport bi. donc nag mu nekk encore benn inquiétude. Mhm. bu dee Sénégal. mun moo nekk l'un des principaux points de départ mm. parce que lii nga xam ne mooy départ Sénégal di uti Tunisie di uti euh, waaxu Maroc yi ak waaxu euh, kii euh, Espagne yi mm. amul ci benn réew Afrique bi nga xam ne départ yu mel noonu am na mm. donc loolu bu amee Sénégal bañ ci bokk day indi problème <laughs> mooy benn ñaareel bi mooy que il faut que Pape Matar Pape Maguette dëkk bi nañuy tàmm nañuy tàmm du ubbi ay enquête di situer les responsabilités soo xoolee mën bi lu mu fi ah, euh, mbëkk bi lu mu fi rey ci ay nit hmm. soo xoolee mbëkk bi li mu fi enrichir ci ay nit hmm. xoolee les responsabilités yi nga xam ne moom nañu war a situer hmm. mooy maanaam koppar gi nga xam ne Union européenne nee nañu dugal nañ ko fi may fàttali ne que kii doon premier ministre France euh, Philippe euh, Philippe ñëw na fii Sénégal daal dina ci fukki at yi mujj mille trois cent dix milliards dugal nañ ko fii Sénégal pour xeex contre l'immigration war nañu nag saytu mille trois cent professeur gi nii moom dañuy wax mille trois cent milliards lan la mun ci dix ans lan la mun a jural hmm. euh, jeunesse su Sénégal hmm. cest di loolu yëpp tamit il faut ñu taxaw xool lan la leneen li mooy sunu mbokk yi sunu moo xam sunuy rakk moo xam sunuy doom mooy xam sunu jarbaat yi nga xam ne ñi ngi ci àll bi hmm. nekk ci désertu Libye bi. nekk ci désertu Tunisie bi nekk ci désertu Dakhla marokin bi. di woote wallu boobu ak léegi amul benn benn benn benn geste ba nga xam ne. Hmm. nguur gi def na ko pour jëli leen. Hmm.